li nga xamante ne xam na tey doon na loo xamante ne kenn rafetlu ko dëgg yàlla ndax eh, ñi ñu ko seqal ñu nag ñoom moom ay famille lañu ay mbokk lañu donc lii mënoon naa ñàkk daal parce que boo xoolee tey équipe yi nga xamante ne nekkoon nañ ci biir Yaraax yëpp yaakaar naa ne moo xam ne mu ngi nekk koo xamante ne moom moo ko dem ginnaaw donc waroon nañ ko mën a jàppale soutenir ko. waroon na mën a ñàkk waroon na mën a ñàkk bokkuñu esprit yëpp bokkuñu esprit am na ñoo xamante ni mais am na ñoo xam bu ñu koy def kenn du leen téye donc kon bon am na yoo xamante ni war a ñàkk daal euh, ba ñëw daal di jël comme ci xeex. donc li ko waral mooy nawetaan moo mel noonu ndax ku nekk xam nga ni fi mu Sénégal. violence le violence le violence politique partout championnat national le bon partout au Sénégal parce que man ñu ngi dëkk ko ñu yàlla moom am na ay copains yoo xamante ñu ngi dëkk ko ñu wàllu daal te man ak ñoom mosuñu toog jàmbaar loo di def yu mel nii ñun ak ma mosuñu def yu mel nii donc kon génération bi nga xamante ni ñoom mujj a jub ñoo ñëw indi a boo xamante ni kenn mënu ko ko comprendre

da nga dem jël ko gagné ñee taxaw fee ni la doo ko fi xeetoo même demi final bi la woon ah. dem nga joué cité dóor ko par série avant nga egg sa koñ ñi ngi ngi yàqal sa koñ mais mënoo suñu suñu magu suñu magu dëkk ni ñu def pendant une semaine deux semaines ñu def tournée di wax waxtaan ak supporter yi waxtaan ak dirigeant yeneen dirigeant yi waxtaan ak supporter yi waxtaan ak boy yi pour booy calmer même bu ñu demee bu ñu gañee te ñu calmer bu ñu gañee te ñii ñuy suñu koñ waaw mais c'est pour leen déggal magu dëkk bi dem gañee ñëw di simili taxaw sa koñ di simili ñu la doon simili violence violence léegi ba kañ lii ba kañ lay jeex léegi ñun suñu magu dëkk def ba calmer suñu booy ñoom seen magu dëkk bi defuñu ko au contraire ñun ñooy suufu seen booy di leen jox ay xeer pour ñuy sànni ba pare dem tëju seen biir néeg boo waxee ñun la xale boo ci aayee ñu saaga mais xamuñ daal waa léegi maxal xeex boobu dafa yàgg xam nga loolu tamit foog ñu def loo xamante ne dañuy def pour mu fay mais lii moom mënul continuer li ko doon fay leen la tey mënoon na fay tey mënoon na fay tey maxal dem na fugal jël na ko ñoom ñi ngi taxaw fii booy ñi ngi ñëw di sibile ay waay nañ yëg seen loxo tàccu nañ yëg seen loxo rek ñi nii ba supporteru mbaxal yi gis ni ñii def nañ ñoo leen fekk seen koñ ànd ak ñoom simili ni Wally daan def ba def ak mbaxal nii ñoom nañ ko def mais ñëg boobu la ñu mënul seen xol grand neexul nag dafa neexul ci xol li ma lay wax de dégg nga ko sànq 24 fois nga dem ko final nga jël 14 coupe ñu xaaj zone bi mu soog a dem final jël coupe bu maire coupe bi ci maire bi fii lañ ko ko joxe ñu ne lan mbaxal moo leen teel a jël coupe mbaxal moo leen teel a jël coupe ba ñu xaaj zone bi sax ah ba ñu xaaj zone bi sax xaaj bi sax ñuy indi dér bi. non xam mooy maanaam li ma la wax sànq rek damay expliqué xam ñun maanaam à trois lañ dëkk ñun. waaw te ñun xeexu ñun ak yéen te ñun ñu ko xëy na mosuñu koo jël. waaw kon mbir mi leneen la. laaj leen ko ñoom ah leen ko. laaj leen ko en tout cas daal 30 décembre bii. mbaxal war a jël kubam ñu décorer koñ ba mu neex taasuñ si lumière. suñu yaay booyee suñu femmes yi booyee dama nga introsé femmes yi ay déguisement la ñu sol ay grand boobu bële balaa tey temps décembre bu ñu ñëwee war ko feet bu cinq heures du matin waaye ñun la hey yaay doo dañ la ko wax nga dégg dañuy dem stade di fubali ñoom ñu dem wuti ay seret yëpp ay garavaay di ko gaaree seen buddu kër yi ko sotti seen buddu kër yi di xaar match bi jeex ñu xeex waaw loolu nag loolu ba kañ moom comme xeex lañu bëgg a kay nañu bàyyi sànni xeer dañu koor mais est-ce que tamit du ngeen dem ci yoon tamit. waaye yow gannaaw yow ñaata yoon. ba hmm? nii nii ba nii nii sax dañoo woo hmm. gendarmerie. Hmm. pour ñu ñëw dimbali ñu mais ba léegi gisuñu leen. ba kañ.